bu ma waxul dina am gor yu dul nelaw ñi sonn ci Sénégal dañu bare te am na ñu nga xam ne xamuñu fu ñu jëm ne xam ngeen ni ñii di dugg ci gaal yi di dee ci ndox mi ndax bëgg a génn réew mi dem feneen loolu lu ko jar loolu c'est trop c'est trop ndax réew mu doy waar ñuy nax nit ñi rekk yu kenn xamul di jël ay milliards di ko yàqaate ñu nekk fii di foyee nit ñi rek waa yu kenn xamul dem di jënd ay bonbon ah te jumaa jaa ngi nii ni tekk kenn mënu ku ko yeggale ah. ñuy nax nit ñi ni li ci des barewul te fekk ay onze milliards et quelque la ko defee nañ bàyyi foy te jublu ci dëgg jublu yi ci li ñu xam ñu xam ko li jaadu jaadu parce que itam Niger waruñ ñu ëpp fayda di fii la France doon nekk di yëngali loxo naan day écraser junte euh, militaire bi nekk euh, Niger ndax seen ambassadeur du ambassadeur baa nga ne par force nañ ko pour mu dem ñibbi France parce que font baaxul xontu baaxul ñun ñooñu ñooñu ëpp fulla te ñooñu ëpp fayda waaw parce que ñun ku ñu jox euh, cere ba sa salte rek ñu génn ci li ñu nekkoon te loolu baaxul loolu baaxul nangeen am fayda nag te ngeen taxu waaw waxuñu ko pour dem di xeex mais jël suñu responsabilité ba lu ñu warul nangu duñ ko nangu et puis c'est tout noonu rek la demee waaw bu ko defee kon nag bu ngeen bu leen neexee ngeen dem meeting daf doon def meeting on s'en fout waaw